أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنغال جابلن توروي بروم اديو ييكسينا غير فاج اديو سافر جافي جافي كوكل ني نه بروم اديو سيدي برها خالص am lo xamanteni bi mën naa déglu ma rek am na yoo xam ne maa yow man maa yow mosu ñoo seq loolu mosu ñoo seq loolu man dama lay yorel di la fay dama daan yorel di la fay mais déglu ma man maa leen déglu ma déglu ma tamit déglu ma rek déglu ma rek danaa la fay waaw man danaa la jox sa xaalis waaw. ah kii sonal na mu waay sonal na ma muy bëgg a dee tuuti tàngoor bi kóor gaa ngi métti ba bëgg a dee tamit waaye kii moom keroog gi moom sedd na di te fi mu ne 14 heures moo jot xaaral ma toog nii. xaar ma toog ñu dalu ba ca kanam bu ko defé wuy wuy wuy wuy wuy ya koor gi safna na xaar ma soonu wuy wuy wuy ah wuy oh

day nalaw xanaa day nalaw. day nalaw léegi mu yeewu léegi mu yeewu xaas la toogal xaas rek lay jaamu xaas lay jaamu léegi mu yeewu bàyyi rek lay jaamu. bàyyi leen ko xel bàyyi leen mu yeewu bëgg léegi mu ñëw di wax bëgg na jigéen mu tëdd fee la xamee ne ñàkk na te bu ñàkkee la ñu ci ñun diñu ko diñu ko si diñu ko si waaw. xam nañu ko sa de. ko zum xëccal xool ko tëddaay bi bëgg xaalis kii ba mu ñëwee am am ko indi ma woon la. waa kaala bëgg kaala bëgg bu réeré eh eh eh kaay may ma may ma rek ma gérer affaire bi la laa bëgg booy kaayee nii gis nga paa bee ah yaa ngi koy gis dama ba ci moom nga tàpp tàppal ma yee ko ne ko xoolal xaalis bee nee ndax moom joué ma loolu dama xaar ma film jël ko yow jël ko dina dina xale ba paa dina xale ba paa papa ji mhm. xaalis bu nekk ci yaa moom ah? xaalis bi waaw waaw waaw eh, man man la de man la man la man la xaalis bi nii sama ñeenti téeméer la maa ko moom. man sama ñeenti téeméer la maa ko moom. sama ñeenti téeméer la maa ko moom. taxawal nii yow. taxawal nii yow. la kii seen baay la yéen tam nag. mais kii motul ñu bàyyi. ah, ah. góor gi la. yor. waaw ñu ne ma ñoom ñoo moom xaalis. ñu ne ma ñoom teg fee teg ko dil jël xaalis bi teg ko foofu na mu dem jël ko ba pare ñëw di jaay sax. waaw loolu ñeenti téeméer du ñeenti téeméer feere xaaral ñeenti téeméer waa lemmel lemmel tàllal xaalis waa li naka mu tàllal li ñeent li ñeent li ñeent téeméer tàllal yow da ngaa foog ne suñu xaalis dafa lekk peer xoolal ñun ñëpp xam ne nga nekkee ci koñ bi yow nga trian yow fii laay toog ci naaj bi lii kóoru ren gi moom sama kooru kóoru 2024 gi dootuma ko fàtt fii laay yombi diin da ngay woor ba ngoon jot doo am soxloon ndogoo ba xale yi di la teg diin ci mbedd yi nii nga defee lii jaadu na man lii man xaw ma yàlla ma ko teg xaw ma ku ma teg lii man xaw ma ku ma liggéeyal ko ma yàq lu mu doon ah fii laay toog lii xaru sax jar na ko Sénégal jàpp leen tur wi borom ajo yi yegg si na ngir faj ajo yi safara jafe-jafe yi kokkal la ñu ne borom ajo yi Sidi Barham Sidi Barham nag ne dama yegg si ci Sénégal yegg si ci Kaolack nangaan yegg si ci Ndakaaru Njaay fépp foo mën a nekk ci àdduna bi boo jokkoog Sidi Barham mu fajal la say ajo safaral say bëgg-bëgg ba mu ne kocc Sidi Barham borom aajo yi ah Sidi Barham nee neewoon naa leen waxu gëlëm xajul ci pantere waaye Sidi Barham mi képp koo xam ne da nga am ay jafe lu jëm ci wàllum hémorroïde wala sangam ay am ay ballonnement Sidi Barham mi moo ma ci doy dénk naa leen ko jàpp leen tur wi Sidi Barham borom aajo yi ku mu jëflanteel nga ni gongo ndaxte Sidi Barham daf lay listixaaral teg ko ci alquran al karim ñu seetal la sa ëllëg jokkool ak Sidi Barham Sidi Barham borom ajo yi yow mi bëgg kaaraange wala nga ubbeeku ba faw wala nga am war sa gudul jeex jokkool ak Sidi Barham wala ngay wut bayre ah bayre njaay ak bayre njënd lépp Sidi Barham mii moo ma ci doy wala nga bëgg nopp Sidi Barham moo ma ci doy wala nga bëgg tukki mu tëla ticc boole ak Sidi Barham Sidi Barham lépp lay wut ci ay papier ngir bëgg a génn Sénégal dem ci yeneen réew bu la jafee jokkool ak Sidi Barham mu fajal la sa aajo moo tax dey xale yépp naan ko borom aajo yi ne damay faj góor gu néew kattan jigéen bi nga xam ne dafay gis règle te muy métti jokkool ak Sidi Barham borom aajo yi ah góor ñi nga xam ne nag dañu tële wala ñu néew kattan jokkool ak Sidi Barham borom aajo yi tension sax Sidi Barham moo ma ci doy a ba mag ñi xoolee ne waajaa ngi laa leen ne waajaa ngi noonu kon nag Sidi Barham ma ngoog boo bëggee visa wala nga bëgg njabar wala nga bëgg jëgër mu tëla ticc wala nga bëgg am doom maa ngi leen di dégal jokkoo leen ak Sidi Barham borom aajo yi woo leen ko ci 78 168 65 06 78 168 65 06 Sidi Barham borom aajo yi daf lay fajal hémorroïde di la fajal ay ballonnement lépp nag mën na la ko seetal tënk ko ci alxuraan al karim ak mbindu yàlla yi Sidi Barham mi mooy borom aajo yi kon nag woo leen ko au 78 168 65 06 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم